ñu ngi leen di jaajëfal mbokk nga xam ne yéen ñuy teewalu ci IYAT TV ñu dalalaat leen ci xibaar ñu àddu ci lu ñeel euh, décision bi nga xam ne euh, kii di gouverneur bu Dakar di Alassane Sall moom nag daal na koy jël ginnaaw bi nga xam ne euh, ñenn ñi ñu ngi waajal la 17 bi nga xam ne ci la ñu war a amalaat appel bi nga xam ne kii di Mame Mbaye defoon na ko mu dox ci diggante dossier Ousmane Sonko ak Mame Mbaye muy Prodac bi nga xam ne. Euh, daal nay amoon ba Mame Mbaye Niang di xam la ne kii di Ousmane Sonko daf ko diffamé loolu nag daal nay indi commencé indi ay situation yoo xamante ne si ne ñu bëree bëri kat daal nañu jàpp ne euh, dafa am décision boo xam ne moom la ñuy waajal euh, kon moo waral kat kii di gouverneur di tere yi nga xam ne nit ñi mën nañ cee jaaree utiliser ko ci ay manifestation lu ci mel ne ay petrole ak li nga xam ne moo di essence loolu nag daal di nay tere ni tey jii. Euh, ñuy jaay euh, carburant foofee ca Dakar nga xamante ne si ne moom moo fa nekk moom nag nee na bis nag tey ji euh, kenn amut droit daal di jaay ci li nga xam si ne moo di carburant ci butéel waaye itam képp koo xamante ne si day jënd carburant day indi li nga xamante ne moom moo di motoom wala otoom ñu defal ko ci mu daal di dem waaye itam interdire na ñu daal di koy jaay ci butéel ginnaaw ba nga xam ne Euh, ba keroog kat euh, le 18 di passé lool nag nekk loo xam ne kii di gouverneur bu Dakar daal dina koy euh, jël comme ab décision boo xam ne jaaxal na Sénégalais yu bëree bëri wante itam ñu bëree bëri yaakaar ne li nga xam ne kat moom lañuy ñuy waajal kat nekk na mbir yoo xam ne mu ñu déggoo la. Euh, loolu nag Sénégal yu bëree bëri ñu ngi toog kat di diglu ndax kat ñu bëree bëri daan nañuy taxaw ñoom daal di takku di xam ne kat li nga xamante ne ñu ngi koy nas ak di ko nocc ci Ousmane Sonko duñ ko nangu benn yoon waaye itam. Euh, duñ ko bàyyi mu jàll benn yoon ndaxte kat ñoom benn objectif rek lañ amoon moo di daal di nelawal ñi nga xale ñoom ñoo di jeunes yi ba buñ jëlee benn décision du bett kenn loolu nag moo waral ay mbir di génn di fiwte ak yoo xamante ne si ne ñu ngi toog ci plateau yi di influencer nit ñi di leen gëmloo ne kat loolu kat nekku fi lu bees décision pour annuler ab candidature jàmbur nekku fi lu bees loolu nag nekk loo xam ne euh, ñi ngi koy nemmiku ci ay kàddu ci nit ñi invité foofu ci plateau yi loolu nag nekk loo xam ne lu doy doy gu war la waaye itam euh, mel na ne stabilité réew mi xaw naa suuxee bu baax a baax loolu nag ci jamono yooyu euh, kii di Mame Mbaye Niang daal dinañ koy seetaloon ginnaaw ba nag bu defee appel day laaj ñu bëree bëri taxaw ci seetlu ba appel bi lan mooy sabab bi waaye itam lan moo ko tax a jóg loolu nag ñu bëree bëri ah, daal dinañuy njort nekkat loolu kat liñ ci jublu moo di fexekat ba tappale ba kii di Ousmane Sonko bañ a participer ci élection yi présidentielles yu 2024 yi lool nag nekk loo xam ne ñu bëree bëri ñu ngi taxaw waaye itam di bindu di xam ne nekkat duñ ko seetaanoo benn yoon wala mbokk ñu leen jox dig dajee ci yoon xibaar leen wax na ngeen abonné te activer cloche de notification bi pour bépp vidéo bu ñu dugal jot